dossier Thione Seck j'ai été euh, j'ai été bu toog ci télé bi ne Thione dañ ko war a bàyyi may ko liberté provisoire parce que lañ koy jiñ amul ba ma ko waxee lu ne dégg naa ko ci xanaa yaay avocat Thione Seck xanaa Thione Seck da fay xaalis gis nañu fu mu mujjee dossier Imam Ndaw toog naa fi émission fajir diine ak jamono ne leen ñu koy jiiñ yëpp du dëgg dara amu ci dara du ci dëgg et pourtant ba ñu demee ba ci cappaandal ga dañ ko dañ ko dañ ko man mi observé justice su Sénégal ni muy doxee ces dix dernières années kon daal jàpp nga ni daal li ñuy wax ci rebelle yi man la dara du ci dëgg dara amu ci hormis rebelle yi jàpp nga ni kon li ñu wax nii que ni force spéciale yi dañoo bëggoon également dara amu ci lépp ay sos la lépp ay sos la ak ay kàcc ak ay lay pour mën a jàpp ay nit pour mën a justifier li nga xam te moom mooy combat bi nga xam ne dañ koy ñu ngi koy combat pour combattre opposition mais su fekkee ni su mais mais euh, su fekkee mais bu dee li may dëgg li may wax ni du dëgg procureur na ma arrêté pour diffusion de fausse nouvelle bu dee li may wax ni du dëgg procureur na joxe ndigal ñu arrêté ma pour diffusion de fausse nouvelle dama ni non kenn du la arrêté sama li ñu wax ci rebelle yi lépp ay fen la ay kàcc la dara du ci dëgg ñu benn rebelle ñi ñu jàpp jàppuñu lekk benn ngànnaay projet attentat yi ñuy wax dañoo naroon def léegi dañoo naroon dara du ci dëgg ku mënti defar PV PV yi ñu wax li liñ ci bind dara du ci dëgg ñu jàpp dañ leen duma duma yu metti torturer leen wax loo leen ci PV yi lu ñu waxul ñaata yoon lañ fi c'est pas